dara aji teew yaani dafa jublu ne anal musaafira naka aji tukku ja laa yaqsuruha du ko wàññi wa yusalliha dana ko julli ka salaati xaadiri ni ki julli aji teew fa waqtuha waxtoom wa waroobu shamsi mooy soxu jant ba fa isa tawaarat ndeem suturlu na rek moom jant bi bil xijaabi ca kiiraay la kiiraay la wajabat kon war na maanaam kon sax na asalaatu julli ga laatu axaru deefu ko yeexe timis moom nee na des koy wooye julli aji teew maanaam julli ku demul fenn moo tax des na ko wooye salaatu shahid julli ku demul fenn ndax wane ne ka dem fenn tukki ak ka demul fenn ñooy mooy kenn du ko ci wàññi dañ koy julli rek ba mat ñetti rakka moxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu jant bi soxee jant bi soxee bu wër rek foofu la moxtaaram tàmbalee dana dema dem nag ba shafaq fàddu shafaq mooy xonk-xonk yi nga xam ne moo desoon ci fi jant bi soxee bu demee baraaf foofu la moxtaaram timis yam am nañu koy tollool nag ci bu jant bi soxee nga toog fi diir boo xam ne mënees na fee waaj nodd fi li xam fi julli fi ñetti rakk rek daal ne kon muxtaar daal nay jeex am ñu koy tolloolee noonu waaye muxtaar moom daa gàtt daal wala sa laxaat di ko ñeel illaa waxtu ndari waxtu waaxit nu di wenn laatu axaraw def ko yeexe xam fu walis ko nee na waxtoo moom daa gàtt walis ko yeexe war nga cee gaaw bala laa raw wa waxtu salaatil xatamati waxtu julli marax wax ye moom salaatu xisaa yi mooy julli gee te wa hada ismu wiliyatul awla moo gën a yeyoo bi xaa ci moom moom nag rayu boobu batu shafaqi mooy fàddu shafaq génneen daañ ko wax salaatul xatamati waaye na nga wooyee ko salaatul xisha boobu ndax noonu la ko alquran tuddee moom mi ngi tàmbalee ci bu shafaq fàddoo mooy bu xong-xong yaraafee nga tax mu naa la wa shafaqu shafaq alxamratu mooy xong-xong ba albaqiyatu bi aji des fil maxribi ci sow min baqaya shuhaahi samsi ci desiti cee ñaari jant ba fa isaalam yaf kan ndéem desut fil maxribi ci sow sufratun benn gel-gel wala xumratun du caagéen benn xong-xong faqad wajaba kon war na maanaam kon sax na al waxtu waxtu wa wala yun zaru te deful xool wala deful néggadiku ilal bayaat di jëm ca weex-weex ba fil maxrib bi ci sow gée moom nee na xong-xong yi nga xam ne mooy des fi jant bi sowe woon bu demee baraaf ba gisatoo le ba gisatoo dara ci xong-xong gi rek xamal ne kon timis jeex na gée tàmbalee foofa am na weex-weex bi feeñ foofu ci sow na waaye mut ta faale xong-xong yi braafee rek jàppal ne moom gée jot na foofu la muxtaar ma tàmbalee fa dalika loolee waxtul waxtu la laxaa ñeel ko ilaa sulusi leyli ba ca sulus bu guddi ga min man ca ka nga xam ne yurid dana namm taxiraxa ak yeexeen li soxlin ngir soxla aw xuusin wala ngànt wala mubaadaratu waaye gaawee ko bi xaa ci moom aw laa moo gën a yee nee na muxtaarum génn ak moom dana ci xaw a yàgg ndax fa mu dalee mooy ba xong-xong yi raafee ci sow bi dana dem ba boo defoon guddi gi ñetti xaaj benn xaaj ba war a jeex guddi gi mi tàmbalee fi jant bi sowe maanaam bu ñu ne léegi jant baa ngi so daanaka ji sept heures vingt cinq ñu noddu salaatu daanaka six heures mooy dix léegi boo seetlu diggante bi def ko ñetti xaaj rek fu xaaj bi njëkk yem rek xamal ne foofu la muxtaarum géem a yem waaw guddi bu nekk rek boo ko defee ñetti xaaj fa xaaj bi njëkk ba jeexee rek wala muxtaarum gee yem loolu nag kon dana nu wuti ndax guddi yi yee day gudd yee gàtt mu ne waaye lu mu ci mën doon nag nga teel ko julli fa saasu ba mu door a jot moo ëpp tuyaa ba ni ki mboolem julli ci des yëpp itam teel leen a julli moo gën wala ba sa ayit an yu axiraha mu yeexe ko ahlul masaajid yi ñooñ jàkk ya xalilan tuuti li fi jimaaxi naa si ngir tax ak nit ña mu ne waa jàkk yi moom taamu nañ bu gee jotee ñu bañ a julli fa saasa xaw ko yeexe tuuti ndax nit ña bëgg a fekk si mën a fekk si waaye loolu ba tey sukkandikuñ ko li sukkandikoo rek mooy teel ko julli rek ca waxtoom doonte jàkk jële itam wa yukrahu def na sib annaw mu nelaw xabla xaa ci ak njëkkam maanaam bu fekkee julli nga tiris ba noppi te gee jotagut daañu sib nga tëdd noonu nelaw ndax dañu bañ na nga farale far bañ a julli gee de sax bu gee jotoon ba noppi moom doo sañ a tëdd nelaw te bañ moo fukk lay yee li wax ni mooy julli nga tiris ba noppi te gee jotagut foofu la yem ci rek sib rek nelaw noonu te àggu ci araam waaye bu fekkoon ne moom gee daa jot ba noppi doo sañ a tëdd nelaw te bañ woo koo xam ne moo lay yee walla waxtu weeraw xam ne boo naree sarale wi mu yee la wal xadis si nañu waxtaan li xëy suxli ñellu du soxla ba xadaxaa ci gannaaw gee gannaaw boo jullee gee ba noppi itam dañoo bëgg nga teel a tëdd teel a yeewu ndax nee nañu teel a tëdd teel a yeewu daa bari ay ngëneel lool dana tax neexum xel dana tax a bari wërsëg léegi dañu bañ nag boo jullee gee ba noppi ngay jeexal sa waxtu ci waxtaan yi amul njëriñ mbaa seetaan yi amul njëriñ ñoo bëgg daal léegi boo nekkul di jàng nekkoo ci lu baax rek nga teel tëdd ndax nga teel a yeewu nu seetlu nag ne waxtu julli moom léegi am nag jàppandal manees na laa jox at mi ba mat yépp fukki weer yeeg yaar bis boo toll rek xam waxtu woo ci julli julli yi juróom tàmbali nga xam ne kon boo yoree montar rek mu daal di jàpp ni du aajowoo ngay xool takk ndeer yeeg asamaan seeg dara baabun bi ab bunt la fil adaani ci nodd wal iqaamati ak liqaam bëgg a wax nag nodd ak liqaam wal adaanu nodd waajibun aji war la fil masaajidi ci jàkka ya wal jamaahaati ak mbooloo ya arraatibati aji sax nee na nodd sunna la su dëgër soo xam ne fu néegum yàlla nekk rek sunna la bu jotee ñu yëgle ko fa te nag lu jàkka yi jege-jege rek moom du tee fu doon jàkk rek sunna la ñu yëgle fa ni waxtu yu jot na bu jotee ba tey fu mbooloo yi tase moo xam day garab penc moo xam day marché dañ jàpp ne buñ noddee dana am ku wuy si fekke si julli ga kon ba tey sunna la ñu nodd waaye mbooloo muy takk ci benn béréb nag fa ñu nekk mënuñu faa génn te jàpp ñu ne buñ noddee kenn dina ñëw mel ne ñu ñu tëj kaso xam ne jàpp nañ ne moom buñ noddee itam kenn du ñëw kon ñooñe duñ nodd ba tey yow dong ci sa kër bu fekkee miinaloo ñi la wër ak nodd bañ xas la miin ba lay déglu daañu sit mel ne yow dong rek nga nekk sa kër waxtu jot nga daal di nodd xam ne jàkk nekku fa dara nekku fa fa doon jàkk nag moom ñu ko waxee rek lu jàkk yi bari bari ak luñ jegee jegee rek sunna la bu waxtu jotee ñu nodd yëgle ni waxtu jot na lim ci teg nag ne fa amma rajulun daal waaja fii xaasat nafsi jagleeg boppam fa in ak dana ndem nodd na fa xasanun kon aj rafet la maanaam daa bëgg wax lu ñu sopp la teg ci wala budda waaye mënta ñàkk lëxoo ñeel ko min al iqaamat ci liqaam daa wax ne bu dee yow dong boo noddee def nga lu ñu sopp bu fekkee noddoo du wàññi dara liqaam nag moom faaw nga def ko ndax sunna soo xam ne moo gën a dëgër sax sunna su nodd loolu na nga ko teqale maanaam boo xasee génn sa kër daal moom jëm ci àll ba moo xam ne ngay sàmmi moo xam ne ngay bay moo xam ne ngay tukki li muy doon doon yow dong nga xam ne boo noddee jàppoo kenn ku la wuy si koy dutee sunna la rek nga nodd ndax dañoo wax ne ku ñuy wax Abu Saïd yonent bi dana ko woon yow da ngay nekk da nga di ko bëgg julli gi ak àll bi waaye boo nekkatee ci sa julli gi ak àll bi noddal te booy nodd nga yëg sa kàddu bu baax a baax ndax lépp lu dégg sa kàddu rek bu spencee na la seereel jëf ju baax jooju nga defoon koo xam ne ko isa kunta fi xanamika aw baadiyatika fa addanta li salaati farfa sawtaka bin nidaay fa innahu laa yasmau mada sawtil muaddini insun wala jinnun wala shay'un illa shahida lahu yawma alqiyamati niñ ko xewoon léegi nag bu dee sa kër nga xam tukki woo defoo dara génnoo liggéey mbaa dara nag moom bu fekkee tamaloo nit ñi sa nodd ba ñu lay déglu ci waxtu jot kon bul nodd jox ñu ndigal nodd ki génn rek jëm ci àll ba mbaa muy tukki lañu wax ne kon bu dee moom dongit moom sopp nañu mu nodd ndax ajus boobu nga dégg léegi wa amal maratu daal jigéen fa in aqaamat ndéem li qaam na fa xasanun kon aj rafet la bu ne xasan rek lu ñu soppale ci jublu wa illaa ndéem li qaamut fala xaraja kon dit bàkkaar du ca nekk daa wax ne jigéen moom ak noddam araam na li qaam nag moom sopp nañ ko bu ko waxee ci suuf waaye ba tey du yëkkati kàddoom moom jigéen bu dee li qaam kon jigéen bu sopp nañ ci moom yaar li qaam ba noppi wax ko ci suuf boole ci yaar yëpp lay boole li qaam gi lu ñu sopp la wax nga ca suuf it mënu caa ñàkk wala yu addinu du nodd li salaat ñel ak julli xable waxtihaa ci njëkk waxtoom wa illa subha ndari suba fala ba sa ayit an yu addina mu noddal laxaa ñel ko fi sudus ci sudus ba al axiri ba aji mujj mina layli ci guddi ga dafa wax ne day araam nag nga noddal genn julli te waxtoom jotagut ndax nodd da yëgle ne waxtu yu jot na te boo ko defee te waxtu jotagut kon wax lu amut lay doon moo tax kon nodd te waxtu jotut lu araam la ba mu des nag jullik suba jullik suba moom day ñëw ci waxtu woo xam ne day tombeeg nit ñi di nelaw ñu bëgg nag nodd nodd yeete goo xam ne dana tax ñu yeewu mën a waaj ba dañoo àgg ci waxtu wa jot dëgg-dëgg nga xam ne kon guddi gi boo ko defee juróom benn xaaj su juróom ñi jeexee ba mu des benn rek daañu sopp nga nodd nodd yeete bu waxtu wa jotee dëgg dëgg nag nga door a nodd nodd gi ñu wooyee salaatu mooy gi ngay waxee asalaatu xayru minan nawm jooju ci nodd ga nga xam ne ca la ñuy war a jullee ca la ñu koy waxee ku njëkk kenn du ci waxaale loola waa Tuubaa dañoo aadawoo ñoom dem ba waxtu def rek nga xam ne mu daal bi mu noddee nii noddu yeete buñ ci tegaati waxtu rek mu tombeeg waxtu yu jot ñu daal nodd nodd gu mujj gi wal azanu nodd nag ni lañ koy defee allahu akbar allahu akbar moo ci njëkk bu koy firi nga ne allahu yàlla akbaru moom rek mooy aji màgg mbaa nga ne moo gën a màgg ci kaw boo tolloo leen am na leneen lu màgg dana ko baamuwaat allahu akbar muy ñaari yoon ashhadu dinaa seere ne am naka lay mbir laa ilaha amul benn buur illa allahu mbire yàlla yàlla ko baamuwaat ashhadu dinaa seere ne am naka lay mbir laa ilaha amul benn buur illa allahu mbire yàlla ashhadu maa ngi seere ne am na muhammadan naka muhammad rasulullahi ndawul yàlla yàlla ko baamuwaat ashhadu anna muhammadan rasulullah nga bañ a fàtte ne booy noddu fa sa kàddu yi daaneele da nga koy maas maas ak néeg waaye doo ko maas maas nga fa dëkk doo wax allahu akbaru ngay wax allahu akbar dellu ko baamuwaat ngay wax ashhadu an la ilaha illa allah nga xam jàngaari nga ëx ji ci alsaqeer gi waaye doo maas doo maas bu wér ashhadu an la ilaha illa allah tey nga ne allah allah moo gën an laa teew nag an laa nga gis ñu bind ko ba tey fee nga ne ashhadu anna muhammadan rasulullah moo gën nga ne ashhadu anna muhammadan rasulullah ñoo bëgg nga jàng dar nga ne ku jël daal sàdda ko ci raa te bañ a jàng dan moo gën nga ne ashhadu anna muhammadan rasulullah nga xam ne ëh bi da nga koy jàngaale foofu su ma turajjihu topp da nga deltoo bi arfaxa ci lu gën a yëkkatiku min sawti ka ci sa kàddu ga aw wala marratin ci yoon wu njëkk fa tukarriru te ngay baamu attachahuda seere sa fa taqul te ngay wax ne ashhadu maa ngi seere ne an laa ilaha illallah firi woon naa ko léegi ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah naa bu dee ci yoonu Maalik moom gannaaw boo waxee allahu akbar ñaari yoon ci kaw da nga yëkkati ashhadu bu xaw a xumbaali rek ashhadu an laa ilaha illallah ñaari yoon ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaari yoon bu xaw a xumbaale ba noppi nag dellu yëkkatiwaat leen bu gën a xumb nag yoon wu njëkk wa ku nekk nga waxati ko ñaari yoon nga xam ne li ñu jublu rek mooy bi yëkkatiwaat bu jib mooy gën a xumb yu njëkk ya di sax jubluñ nga dee yu njëkk ya ba nga xam ne kenn du ko dégg dañoo bëgg yu njëkk yi dem nga yëkkatiku waaye dayu mujj yi gën a yëkkatiku hayya jublu si leen xala salaati ci julli hayya jublu si leen xala salaati ci julli mooy ñëw leen julli gi rek mooy hayya xala salaati waaye nag doo jàng loolu maanaam doo waxe noonu boy nodd hayya ala salaati da ngay dindi ñaar tomb yi ci salaati maas ko maas ko al maas ko maas ko néeg al saxir nga maas ko maas ko néeg daal jàng hayya ala salaa xam ne ah boobu da nga koy jàngale foofu hayya ala salaa hayya jublu si leen alal falaa jëm ci sabab texe ñëw leen ci julli yi nga xam ne day tax a texe hayya jublu si leen alal falaahi ci jëf ji sabab texe hayya alal falaahi moom it doo maas hayya alal falaahi ci wér ngay dindi masque gi ci falaaxi mi masque yat ci suuf def ko masque néeg te fexe ba jàng ko ba ñu xam ne jàng nga ko doo wax rek hayya xalal falaa falaa ab àll lay firi boo yemee ci falaa kese ab àll lay firi ngay wax hayya xalal falaax hayya xalal falaax nga xam ne ax boobu ñëw na fa in kunta dem nekk nga fii ni daay suba yi ci noddu suba zitta nga dolli xeexu naa fii assalaatu leerub julli xayrum moo gën mina naw mi ci noflaayu nelaw yàlla ko baamuwaat assalaatu xayrum mina nawm moom itam aw am daa xaw a naqaree wax ndax yaari masque yi nekk boo leen jéem a jàngandoo day metti waaye faaw nga jéem ko faaw nga ne assalaatu xayrum mina nawm nawm jooju faaw nga jéem a wax aw am wax ko ñaari yoon laa taqul bul wax daalika loolee fi xayri ni daa i subuhi ci lut noddu suba suba rek ngay wax nag asalaatu xayrum mina nawm waaye bu fekkee geneen julli la boo koy noddal doo wax loolu nga daal di wax nag allahu akbar allahu akbar laa ilaha amul benn booru illa allahu ndara yàlla te moom itam nga ne laa ilaha illa allah nga xam ne ah boobu day ñëwaale maratan aw yoon waaxidat mu di wenn maanaam laa ilaha illa allah benn yoon képp lañ koy wax waaw wal iqaamatu liqaam witrul aji tool la liqaam moom daa tool xam nga nodd moom daa tollantiku baat boo wax ci nodd da nga koy baamuwaat ba mu des laa ilaha illallah moom rek moo amul baamu liqaam nag moom daa safaanoog moom moom daa tool lu nekk benn nga koy wax ba mu des allahu akbar allahu akbar lañ ciy baamu am na ñuy baamu nag xadd xaamati salaatu ci yenn ngir yaay bu dee ci yoon maali amul baamu benn yoon rek la allahu akbar rek moo ci baamu wutaan ci dem ci booy li xaam da ngay maas bu jub baat ba lu war a maas lu may fa sa kàddu daaneele da ngay wax allahu akbar allahu akbar ndegam da ngaa taxaw ci bak akbar ji waaye bu fekkee taxawoo ci da nga koy maas soo taxaw da ngay wax allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allahu ashhadu anna muhammadan rasulullahi nga xam ne foo toll da ngay maas la war a maas bu fekkee yéen da ngaa taxaw sa kàddu taxaw foofu nag say ba maas maas ak néeg ndax arab yi noonu la ñuy def fu ñuy taxawee dañ fay maas maas ak néeg dañ ko daam dañ fay taxawee daal te yëpp te yëpp moom maas ak néeg lañ fiy taxawee ndax loolaa ci war boo day jàng ci naxu الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله يعني حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنا نيجي قامي نخمني فوتول رك ماسك نكور ماس قد قامت تخون الصلاة جلي جلي فري موي جلي جي تيونا باب صفة العمل لي موي بنتو ملو جفه في الصلوات جلي المفروضة يدين فلاتال وما اك لاغا خمني yattasil dana jokk bi xaa ci ñoom minan nawaafili ci ay naafila was sunna ni ak ay sunna day bëgg wax nag boo dee julli julli juróom noo leen di jullee ca rukkoo yaag sujjóot yaag taxawaay yaag yépp rek moom noonu la koy tegalee te tàmbali julli suba nag wéy wal ihraamu armal fi salaati ci julli an taqoola moo di nga wax ne allahu akbar laa yu gisiw du doy xayru haadihi kalimati lu may bile baat maanaam boo bëggee dugg ci julli gi ngay wax allahu akbar te ànd yéene ji baat boo wax bokkut ak boobu nag du doy boo ne woon sax akbarullahu sax du ko tax a doy boo ne woon allahu azam azam wecc na akbar ci xëy na max naa waaye du doy faaw rek allahu akbar moom nga mën a wax su ko defee dafa war lëkkaloo yéene ji maanaam boo wax sam xel ne yéene naa tisbaar rek mbaa yéene naa julli gi teew daal di wax allahu akbar fi saa sa mu sës ci rëkk rëkk rëkk yow bëgg ñu sësaloo waaye jarul ngay bëgg mu sësaloo nag ba ngay jax-jaxi nag sam xel naa yéenewu ma am yéenewu ma taw muñ ba tey nga wax ko ci sa làmmiñ ne yéene naa julli sàngam lu may boo ko defut sam xel di jax-jaxi te ci yoonu Maalik moom bu fekkee nar ngaa jax-jaxi say boo wax ko ne yéene naa nangam daal di ne allahu akbar fa saasa wa tarfaxu da nga yëkkati ya day ko si yaari loxo xadwa man ki bayka ba mu tolloog si yaari mbagg aw duuna zalika wala lu yës loolee dañoo sob booy kàbbar kàbbar almal bi nga yëkkati say loxo ba mu tolloog say mbagg mbaa ba mu nekk diggante say bëgg ak say nopp yëkkati boobu li ñu sopp la bokk na ci ngënee li julli su ma taqarawu topp da nga jàng léegi nag suba la bëgg a tàmbalee nag nga daal jàng ndegam kàbbar nga armal bi jàng mooy ci sës fa in kunta dem nekk nga fi sofi ci suba xarata nga jàng jëxran ci biral bi umil qur'aani ci fatiha laa tastaftih bul tàmbalee bi bismillahi rrahmani rahimi ci bismillahi rrahmani rahimi fi umil qur'aani ci fatiha ja wala fi suurati jaageeru ci saar wa allati wa nga xam ne baadaha nekk na ci gannaawam ndegam suba la tàmbalee nee na bu dee suba da ngay jàng te biral ko ndax suba sunna la nga biral ko fatiha ngay njëkk a jàng boo noppee teg teew saar waaye nag bul jàngaale bismillahi rahmaani rahim bul ko jàngaale ci fatiha ji bul ko jàngaale ci saar wa ndax yoon wi ñu topp muy yoonu maal dañuy sib ku jàng bismillahi rahmaani rahim julli ko farata te yoon woowu la sëñ bi toppaloo boo déggee ne ku koy jàng nag bu mu tax nga diingat ko mbaa dara ngir yee wuute rek waaye yow nga topp rek saw yoon fa isa xulta boo waxee wala daalin faqul waxal ne amin in kunta dem nekk nga wax dakat yow dong aw xalfa imaamin mbaa nga nekk ci ginnaaw ilimaan wat wax fiihaa te nga koy yelu soo waxee wala daalin ngay wax amin bu dee yaay jul yow dong moom sopp nañ nga wax ko waaye nag ba tey ci suuf nga koy wax doo ko yëkkati doo ko yëkkati wala yaquluha du ko wax al imam liman fii maa ca la nga xam ne jahara biral na fii ci moom wa yaquluha dana ko wax fii maa ca la nga xam ne asarra yalu na fii ci moom yene boo dee jiite ba ak si ci wala daalin da ngay bàyyi ñi nga àndal wax amin te wax ko ca suuf ñoom itam waaye yow ñagam yaay jiite te da ngay biral bul wax amin boo dee yàlla nag moom nga xam ne yow rek yaay dégg li ngay wax di ci ëpp kon baasee ci wala daalin da nga wax amin ndax xam nga dégg ilimaan yu am xam-xam bu baax a baax su waxee wala daalin mu wax amin ci kaw boole ci da nga dégg ci tamam yi ànd ak moom am ràññi ko bu baax a baax tey wax amin ba jàkk ji yëngutu jàkk ji yëngutu waaye loolu seenu yoon la noonu lañ gisee te loolu lu wér la itam ba tey ci hadis kon da ngay jàpp li ngay jàpp te bañ a diingat bañ a gaaw a defe na rek li nga jàng fii rek moo war a am dudul moom du aw yoon yoon maali daal moom mooy ku mën di wax amin da ko yàllu ci suuf te ilimaan bu dee biral du ko wax day bàyyi maamam yi wax ko bu dee yàlla dana ko wax waaye ci suuf la koy wax bu dee jul yow dong nag moom da nga ko wax ci yaar yépp ci biral biral ak yàlla waaye ba tey ci suuf nga koy wax loolu mooy yoonu malik wa fi qawlihi nekk na ci waxam nga iyaaha moom amin fil jahri ci waxtu biral wa ixtilaafun ak wuute dañoo wuute ci ilimaan bu dee biral dana wax amin am du ko wax li wóor ci yoon malik mooy du ko wax suma taxaraw topp da nga jàng suuratan aw saar min tiwaalil mufassali ci way guddi mufassal yi wa in kaanat dem nekk na ak wala di gën a gudd min taalika ci loolee faxasanun kon aj rafet la te xadri taxliisi ci kem miir miir ga miir miir mooy jaxasoog lëndëm géeg leer gi ci jamonoy fajar googu le daa wax ndegam suba la dañoo sopp nga jàng ci mufassal yu guddi yi loolu nag moo tàmbalee ci xujuraat ba ci xabasa dalee xujuraat ba xabasa nga jàng ci benn saar ci yooyu bu dee jullit suba taamu nañ ko bu gënee gudd loolu itam baax na mu ngi takku rek ci na lëndëm nga ak leer nga jaxasoo nga xam ne daal ba léegi bët seetagut daal na waxtu wa yaatoo rek dañ bëgg nga jàng na njàng mu gudd ci kaw nag nga julli yow dong mbaa nga ànd ak ñoo xam ñoom ñëpp dañoo bëgg julli gu yàgg waaye bu fekkee ni mbooloo mi faral di mel am na ci ñu tawat am na ci ñu bari soxla moom na ngay jàng rek saar yu gàtt yi wa tajharu te ngay biral bi xiraatiha ci jàngam maanaam saar wa da nga koy biral na nga biral li fatiha ja fa isa tammat de mat na asuratu saar wa kabbar ta nga kabbar fin xitaatika ci sag sippiku li rukoox jëm ci rukoox fatu makkinu te ngay dëgëral ya day ka sa yaari loxo min rukk ba tey ko ci sa yaari bati woo watu saw yi te nga yemale zëhra ka sa gannaaw mustawiyan mbir mu muy aji yemoo wala tarfaxu te doo yëkkati rësa ka sa bopp wala tutatiuhu te doo ko sëgal watu jaaf yi te da nga soreele bi dab xëy ko ci sa ñaari përëg xan jambay ko wël sa yaari wet muy sa yaari poqtaan wata taqidu te ngay fas alxudoox toroxlu ga bi taalika ci loolee bi da ko waxee ko ci sab rukkoo wa sujoodi ko ak sab sujood nee na boo jàngee faatiha ak saar ba mu àgg rukkoo moo ci sës nga daal di wax allahu akbar booy tàmbali sëgg tàmbali tàmbali wax allahu akbar yow bëgg boole wax gi jëw ji boo sëggee rek ba say téng jege say bëti woom rukkoo am na waaye dañoo sopp nag nga jàpp ci say woom bu dëgër a dëgër loxo bu dëgër dëgër ci bëti woom yi loolu mooy tax rukkoo bi gën a mat su ko defee itam nga fexe ba sa gannaaw sa bopp yépp maase gannaaw gi doo ko dooxal doo ko xoggil bopp bi doo ko téenal doo ko sëgal xam ne yépp day maase bi sañoon tam say përëg sori say poqtaan tuuti bañ cee sëf rek rek loolu lépp na nga fas ci yéene toroxlul sa borom màggal sa borom rek ngay jublu ci loolu lépp moo xam ne ngay rukkoo moo xam ne ngay sujjóot day xaw a nuru kuy jëf ci fi dox waaye da nga ci yéene màggal ak toroxlul sa borom wala ta doxoo déet ngay ñaan fii rukkoo xëy ko ci sa rukkoo maanaam nag boo toola ci rukkoo da nga sàbbaal waaye doo ñaan xam nga ñaan mooy yàlla yàlla nag moomay nangam loolu kenn du ko wax ci boy rukkoo rukkoo moom da ngay sàbbaal rek subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi mbaa nga wax leneen waaye ci xeet sàbbaal yi waaye bul ñaan foofu yàlla may ma nangam waxul waxal inchita ndem soob na la subhaana rabbiya tudd naa seetlug sama borom al azimi kay aji màgg wa bihamdihi te maa ngi nekk ci jantam maa mën ngaa wax subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi noonu laa ko waxee woon léegi wala sa fi zalika déet mi nekk ci loolee tawxiitu xawlin day talug wax wala xadd déet fi limite ba tey fi lub si muy nekk ca saaga dafa wax ne bi wax ne ñaata yoon ngay wax subhaana rabbil azim wa bihamdi jàpp nañ daal boo ko waxee ñetti yoon yu teey moom diggu doomu na baax na waaye bu ko yéesee du ko tee baax bu ko ëppee ëppee ñett du ko tee baax boo waxutoon dara dara jàpp ci teewoom itam mu doy dañoo sopp rek wax ngay wax loolu ci bi nga jàpp bëti yooyu waaye gëneel rek nga bàyyi bu fekkee waxoo fa dara dara dara duñ ne itam boo jàpp ci woowu faaw nga toog fa nangam minute te dañuy bàyyi ba nga ne tekk mënta ñàkk dañoo waxoon ne bokk na ci faratay bokk na ci faratay julli foo toll ne tekk ba say cër daal kon boo jàppee ci woowu lu néew néew da nga ne tekk bu cër yi daal lu yées loola moom du doy bu loolu amee loo ci doliwaat muy sunna ndax bi nga ne tekk bu cër yi daal loo ci doliwaat sunna la su ma tar foofu toog te nga yëkkati la ësëk sa bopp waa ante te mbir mu yow xaayilun aji wax nga samihallahu liman hamidah maanaam boo siggee ci rukkoo bi ngay wax samiha dégg na allahu yàlla li ma ñeel ka nga xam ne xamidahoo sant na ko li muy tekki mooy yàlla nangu na ñaanuk ka ko sant am na xisa buñ ci nettali xëy na duñ ko mën a guddal fi waaye daal wax naam ajaaba duha aman xamidaho loolu lay teggee su ma taxul topp da nga wax allahumma yow buur bi rabbana yow sunu borom wala ka ñeel na la alhamdu cant nga in ko dandeem nekk nga wax dëkk di yow dong bu fekkee yow rek yaay julli yaa def ngay wax boo siggee ci rukoo gi ngay wax samiha allahu liman hamida ba noppi nag waxaat allahumma rabbana wa lakal hamdu xam ne kon boo di julli yow dong ngay boole sunna seen ngëneel li da ngay siggee ci rukoo bi daal di wax samiha allahu liman hamida ba noppi tam du tee nga waxaale allahumma rabbana wa lakal hamdu wala yaquluha du ko wax al imam al imam te wala yaqul du wax al maamum maamum samiha allahu liman hamida wa yaqul day wax allahumma rabbana wa lakal hamdu maanaam bu fekkee am na kuy jiite am ku ànd ak moom dañ koy séddoo kay jiite mooy taxoo wax samihallaahu liman hamida ka ñuy jiite mooy maamoom maanaam kay toppee muy maamoom mooy taxoo wax allahumma rabbana walakal hamdu kenn ku ne féetiwoo leen wa tastawi te nga yemoo xaa iman mbir mu ngay aji taxaw muttama innan tey aji dal mutarassilan tey aji yolom lu maanaam boo siggee ci rukkoo bi ngay dellu ba taxaw jonn ba ne tekk boo jàppee ci wooñ ba siggi day aajo nga siggi ba àgg ba taxaw jonn mel ni ba nga sëggagutoon siggi googu ba taxaw jonn noonu ba cëri jub farata la nga bàyyi ba ne tekk door a jàll sujjóot it ba tey farata la xam ne kon ñaar ngi foofu ngay taxaw jonn ba noppi ne tekk door a jàll su ma tax yi topp da nga rob saaji dan mbir mu ngay aju sujjóot laa tajlis bul toog ba noppi su ma tas julu topp ngay door a sujjóot waa ndegam xawi koo nga ca kaw di sujjóot si da ngay jekki-jekki sujjóot rek waaye bëgguñu nga toog ba noppi door a sujjóot ndax foofu amutub jataay ngay jékki-jékki daal di sëgg rek sujjóot wattu kabbiru te ngay kàbbar fin xitaatika ci sëg sippiku ma ci sëg sëgg rek li sujjóot li sujjóot jëm ci sujjóot ba fattu makkiru te ngay dëgëral jab xataka sëb ja wa an faka ak sa bakkan minal arda ci suuf wattu baashiru te ngay jonjoo bi ka fay ko ci siyaari te al arda suuf sa ba sitan mbir mu ngay aji tàllal ya day ko siyaari loxo mustawi ya tey mbir mu ñu aji yemoo ilal xibla te jëm xibla daa wax ne boo dee sujjóot ngay teg da ngay teg sa jëmm ne dégg mu bakkan bi bu mu def yëngatoo ko dalaat léegi da ngay da ngay teg rek jëbi ak bakkan mu ne dégg rek benn yoon bi jar nga di ko fës na ba di ca gaañ waaye dañoo bëgg mu ne dégg rek nga xam ne ni bakkan bi tegoog jëbi moom nekkul di yëngatoo ko dal nekkul di jiw ko dalaat dañoo sopp itam say téng nga andi ko ba mu jege ak say nopp waaw dañoo fu nga dëpp sëg jë nga indi say loxo say téng fu nga koy rëppeel mu ñëw ba jege nopp yi loolu tàmm nañ ko ba tax mu naa taj xaluhuma da nga leen def ñoom ñaar xaddu wa udunay ko fa tolloog sa ñaari nopp aw duuna taalika wala lu yées loolee wa kulli taalika mboolem loolee waa si xon aji dagan la maanaam mën nga aji rëppeel loxo yi mu tolloog nopp yi mbaa mu dem ba jege ko noonu népp rek baax na xayra an naka ndare naka yow laa taftarishu doo laltaay diraaxee ka sa ñaari xasab fil ard ci suuf maanaam boo sëggee di sujoot dañoo bëgg sab xasab doo ko tëral ci suuf ak jur ni mu def ak jur bu gooree ngay gis xasab bi ci boppam àgg ci suuf mel na nii ma koy bëgg a wane doo ko def wala tadumm te doo tàppe xabdu dayka sa ñaari përëg xabdu dayka sa ñaari përëg ilaa jam bayka jëm ci sa yaari wet muy sa yaari poqataan walakin waaye tu jannixu da nga yërale mooy da nga xaw a soreele bi ximaaj ñoom ñaar taj niixan ak yërale wasatan gu digg doom nen noonu nga sëggee di sujoot dañoo bëgg say përëg xaw a sori say poqataan waaye taamuñu say përëg sa ci say poqataan bu wér da koy xaw a sori tuuti rek bu digg doomu wa takkoonu dana nekk rijlaa ko sa ñaari tànk fii sujoodika ci sab sujood xaa ima tey ni di aji taxaw mooy di aji yëkkatiku wa butoonu ibhaama yi xima te biir seen ñaari baaraami day ilal ard jëm na suuf ina bi nga sëggee noonu di sujood dañoo tàpp noonu nga sëggee di sujood fi toll nii noonu nga sëggi boo ko dee seet say tànk ci gannaaw itam mën naa tëdd fi suuf waaye say tànk yëkkatiku bu ko defee baaraam yi nga samp leen biir baaraam yi day jëm suuf loolu lañ taamu mel ne nii ma koy bëgg a wanee wa tàqool da nga wax in siita ndeem soob na la fii sujoot yi ko ci sab sujoot subhanaka sorelal naa la lépp léelul ci yow rabbi yow sama borom zalamtu tooñ naa nafsi sama bopp wa xamiltu te jëf naa su an jëf ju ñaaw waxfir yal na nga jéggal lii ñeel ma aw xayra zalika wala lu dul loolee in chita ndeem soob na la nee na boo sëggee bay sujjóot nag mën ngaa boole sabbal ak ñaan lim la waxagul nag sabbal rek la dana ëpp wax nag subhana rabbiyal a'la dolli ca allahumma ighfir li boo nee subhana rabbiyal a'la loolu ak sabbal la sama borom tudd naa sa seel yow mu màgg mi boo ca boole allahumma ighfir li yàlla yàlla ma jéggal nag mu daal nekku ñaan nga wax ko gën gaa néew ñetti yoon te mu tey waaye nag boo waxul dara itam mu baax boo ko waxee lu yées ñett mbaa lu ko pit mu baax ba tey ñaan gi mu la wax tàmbalee subhanaka rabbi dalamtu nafsi wa hamiltu su an faxfir lii ba tey baax na waaye leneen loo wax itam mu baax ci xeeti sàbbaale watad xoo da nga sañ a ñaan fi sujjóot ca sujjóot ba in chita ndeem soob na la xam nga dañoo waxoon ne boo dee rukoom na ngay sàbbaal kese waaye doo wax yàlla may ma nangam bi ngay sujjóot nag moom mën ngaa ñaan bu baax a baax ndax dañoo wax ni sax boo sujjóot ngay gën a jege sa borom foofu nag kon loo bëgg a ñaan rek mën nga koo ñaan boo ca boolee nag